doy na waar doy na waar salaamaaleykum. waaw ñu ngi ziar sama sëriñ ba lépp jàmm. lépp jàmm naka yàlla ñu ngi ñu ngi lay déglu waaw lan war a doon suñu taxawaay jamono ji ak lii temb temb temb loo xam ne liñ ko war a lijjanti bu baax ndax yàpp xaj moom bu seddee sox ndeem dañ koy lekk. balaa ñoo jàll ci leneen lu war a doon taxawaay peuple bi jamono ji lan nga leen di wax. taxawaayu peuple bi actuellement. premièrement dama naan euh, euh, prisonniers yi ñaata temps lañ def ci prison bi di résister di muñ di toog di xaar yow nga xeex benn jour deux jours amoo li nga bëgg nga bëgg a découragé. Hmm. Euh, boo par exemple Égypte place Tahrir ñaata temps lañ fa toog pour am lu ñu bëgg Mali ñaata temps la ñu génn. pour door am victoire. Hmm. Ah, mais mais aussi li ñu war a bàyyi discours décourageant yi découragé nit yi dañu war a éviter discours yooyu. Hmm. Macky Sall dafa am benn acte bu mais lii euh, c'est la première fois mu am Sénégal. Hmm. mu posé benn acte mais nga xool lan moo tax ñu ci génn yëpp te te tey Sénégalais yi ñuy xas tey mais daanañu génn ah. Hmm. xeex fi ba ba dem ba ba ba caserne Samba Diéry Diallo ba nar a dugg biir caserne nga xam ne war nañu que am nañu fit ba gagné fi combat yu bëri. Hmm. ñu toog nangu mais mais yow mii toog commencé découragé di di wax ni que jeex na mais ñu nekk prison nan la ñuy def. ñi dee tamit ñi dee tam am ñi dee ñi dee tam dañuy réclamer justice. ñi gàddaay bëgg nañ ñibbisi si. waaw waaw léegi yow yow salaamaaleykum nga commencé naan non am lu ma métti mais Sénégal Sénégal fii ñun ñëpp am lu leen métti ko amul lu leen métti xëy na xëy am na yoo pexe moo tax. réew Sénégal bu am loolu métti xam nga mooy wax ji. Hmm. nañu arrêté discours teel a découragé Sénégalais moo bëgg a teel a découragé ak commencé ku ne di bëgg jiñ sa morom ne ku nekk xam ne tu es responsable li xew. muy hmm. ku nekk bitim réew ku nekk bitim réew ñun Sénégal yëpp ay responsable lañ ce qui se passe aujourd'hui léegi nag dañu war a xam ne Macky Sall dafa posé benn acte. Hmm. ba pare jëm jëm le 3 le 3 avril am lu bëri yoo xam ne mën a xew ci diggante bi. ba pare lu ñu xool benn méthode lan moo tax mënuñu def woon ñu mars lan moo tax mënuñu organiser wu jàpp benn jour. excellent Sénégal yëpp génn Sénégal loolu lu mën a nekk la dañ koy organiser médiatiser ko jàpp benn jour benn date préparer xam nga def jour morte mm. Sénégal yëpp génn marche pacifique ñu génn des milliers sénégalais. Mm. ñu ko defee am na ñu dëgg mais loolu mën a nekk. waaw loolu da rafet na organisons one million marche organisons one million marche c'est très possible combat dañ koy préparer stratégie dañ koy préparer. mais dañuy gis Sénégal ba la lool tey moom su fekkee gars yi tàngal problème. non continue continuer développement bi bul bul bul calculer continuer développement am na solo. parce que est-ce que dañ ko war a bàyyi mu ñuy jiite wala lañ ko war a commencer nag di waajal nag si ay forme de révolte et d'indignation de révolution yu ñu war a tàmbale mais li ngay développé am na solo. non c'est ça nag problème nag dañu war a xam ne Macky Sall Macky Sall bi bàyyi def forcing forcing poser benn acte ba pare toog xool ba pare bu ñu jëmee décembre mais pourquoi pas ñu ñuy toog di ba le di ko xaar ba décembre. li li li bi ak façon ba seeni teg combat boo xam ne leader yëpp ay ñëw joxe seen bopp ñëpp nekk ci kanam taxaw Sénégal yi génn góor jigéen mag ndaw ku ne génnee sa rakk ku ne génnee sa yaay ñëpp génn boo amee benn dix mille personnes bu génn gërëm naa du du du tàq. waaw ah su boobaa loo bëgg Macky Sall dinañu abal. mais salaamaaleykum ñu gis ku nekk commencé di jiñ sama combat bi kii deful lii kii sama lii di découragé pourquoi ñu découragé ñu nekk prison découragé mu nekk prison la ah nan la nga taxaw di di di yërëmtal te yaa ngi ci biti di andi reer kii ñu koy paquetage. Mm-hmm, ah. ndeysaan. man tey man tey laa gën a taxaw pour xeex barki ak antenne tant que Macky Sall mi ngi ci bopp réew mi man du ma mos a xeex. waaw mm-hmm, ah dafa war a gën a intensif sax dafa war a gën a xeexi dafa war a gën a intensif jamono ji cest à waratul amati jàmm waratul fi toog waratul jiite. waratuñ ko may jàmm fu mu génne war a continuer mais juré zone ñaata ñaata jour lañ xeex dañu mës a mais xoolal agriculteur agriculteurs yi France actuellement seen combat ñaata ñaata temps la durée. yàgg na Sénégal ci bopp moo tàmm mu ñëw mu jiñ ko moromam bàyyi hmm. te war a xaar Sénégal bi bi waroon na fekk buntu consulat taxaw. waaw ah oui non moom kay laa wax ci début kii bi sax ma ne man moom vraiment di xas sénégalais moom man nangu ma waaw côté boobu nanguma ko. dañ leen war a ñu ñu waajal xool solution quoi. c'est ça dañu xool ban solution lan moo tax dañu xool lan moo tax sénégalais yi génnuñu te xam nañu sénégalais yi bëgg nañu génn xam nañu sénégalais yi am na lu leen metti mais lu waral génnuñu nañ xool loolu nañ changé nañ changé tactique nañ changé méthode lan la ñuy def mais warul am bàyyi bàyyi warul am suñu bàyyi dañoo ñàkk jom waaw bu non buñu bàyyi dee c'est fini suñu bàyyi yàqu na waaye kii kii yow kii dafa amatu benn pouvoir kii amatu benn pouvoir amatu ko waaw jamono ji moom jamono jamono ji sax dañ ko jekk defal sal bu ñu bëgg benn groupe bu ndaw ñoo koy defal matuñu dix personnes ñu leen di bàyyi non bu ñu leen bàyyi yàqu nañ moom bu ñu leen bàyyee moom yàqu nañ ñun ñëpp bay yàqu. nañ ko eggali déclenchement bi. dañuy eggali dañuy eggali dañuy eggali xool na na na gars yi réunir na gars yi réunir leader surtout leader yi surtout leader yi parce que affaire bi tam affaire bi affaire bi est-ce que yaakaaroon ni ñaar la c'est-à-dire da ngay xeex libéré wu. wala nga dem dialogue ji libéré libéré nit yi ñaar yooyu ñoo fi am amul leneen c'est-à-dire xeex wala waxtaan léegi jamono jii nii comme avant xeex nañ gars yi ba pare teewu leen forcé nañ ba teg loi bi ba arrière reculer élection est-ce que waru xeex bu waru gën a tàng gën a intensifié wu trop trop parce que finalement mujj nañ def luñ luñ luñ bëggoon def ñoom ci suñu kaw est-ce que léegi warutul maanaam adduna ñëpp génn xeex boo xam ni kenn mësu ko gis est-ce que waruñu ko tam à partir de demain bëri xeex amoo li nga bëgg mais da taxaw nga organiser ko. Mm-hmm. xam nga mais mais mais nga organiser ko mais leader ko war a organiser ko war a organiser ba pare bu ñu ko organiser ñu def benn bloc. waaw soo am leader yi bu ñu defee benn bloc ah. Mm. leader yi ci boppam ñoom ñëppay ñëw taxawandoo joxe na heure ñëpp ñëw taxaw nekk ci kanam bu ñuy jàpp ñu jàpp ñu euh, mais l' essentiel il faut mu ñu organiser wu continuer xeex bi xeex bi warul taxaw même bu ñuy fekkewaat gars yi ci biir xeex bi dafa war a continuer. je suis d' je suis parfait surtout leader yi ñoo war a dajaloo parce que lii c'est le Sénégal du ay affaire Sonko de nangam c'est Sénégal. boo xoolee tey boo xoolee disperse disperse bi ñu defoon leader yi actuellement nii benn benn cause lañu ndax Sonko yaay na ñëpp Sonko dafa yaay ñëpp Sonko lu mu leen wax ci Macky Sall ñëpp gisuñ ko. Hmm. gis nañ ay waa APR yi commencé di di di di attaqué Macky man gis naa ko. gis nañ non jeexal nañ jeexal na. jeexal nañ léegi nag léegi nag yow boo xamee loolu nag waroo bàyyi par man xam na laa mënul dégg discours bu découragé bi wala wala bàyyi ñu nekk bàyyi wu ñu yow ngay bàyyi pourquoi dañ leen ah, dañ leen di comprendre dañ leen dañ leen di dañ leen di comprendre il faut tam ñuy comprendre xam nga sénégalais tamit euh, seen xol na naqari rek mais ñu bëgg ñu bugg Sénégal lañ mais ku ci nekk ni ngay ni ngay ni ngay wone sa xool quoi. mais loolu lépp il faut qu'on se comprenne entre nous aussi. non man xoolal xoolal mm. Mawla. man ci alxuraanu man depuis ma gis ñu affaire bi ak depuis Macky Sall ne euh, day dafay reporter élection mm. yàlla depuis jour boobu ba léegi sama xel mënul jóg nekk prison. Mm. barki alxuraanu karim man sama man man aw ma lu ma metti man mënu man toog damay toog di xalaat ñu nekk prison. kooku rek ñooñu nga war a xalaat quoi. waaw dama ne ñi nekk prison mais am na sax ñeneen ñu ngeen war a gën a xalaat. ñoo xam ne dañ leen a rey te dañoo soxla justice ñi ngi seen bàmmeel di xaar ñu àtteel leen ñooñu tamit war ñu leen fàtte de rey xam nga dañ leen a rey ñi xaar justice te ñoom yaakaaroon nañ la le 5 avril dinañ commencé am koo xam ne dina toog di àtte di atte di àtte nit ñoom nu ñu leen reyee ak rey gu ñaaw gi ñu leen rey justice que justice soit faite donc ñooñu tam ñu am solo lañ les exilés nag les exilés ñi nga xam ne seen papa yi ñi nga xam ne seen papa yi dañoo dee seen ginnaaw mënuñu ñëw seen yaay yi dee seen ginnaaw mënuñu ñëw te ñu yore yi këyit doon dem di ñëw donc loolu lépp nit yi war nañ ci xalaat. non dañ ci war a xalaat man bëgguma ko découragé man bëgguma ko gaaw a découragé man sax bi ma ko gars yi man bëgguma ko gaaw a découragé ndax boo xoolee boo xoolee tey moo la même Macky Sall depuis deux mille vingt et un Sonko di ko sonal mais à le but bu taxoon muy muy muy muy combattre Sonko c'était pour Sonko ba a am candidat. Mm. mais au final mais Sonko moo gagné ndax bu ñu demee à la fin ñoom li dem ba xam ne Sonko daf koy gagné li mu bëggul yëpp Sonko am na candidat candidat bi nekk favori. tey candidat boobu moo tax Macky Sall def lu mu def tey ça veut dire moom li mu doon depuis deux mille vingt et un muy xeex bu deux mille vingt quatre li tegoon dafa échoué kon bu fekkee dafa tegaat beneen beneen pexe bu bees li ñu gëmaat ne pexe bi daf ci échoué. mais man bëgguma bàyyi xeex bi non non non waruñu bàyyi bàyyi ko def. ok jaajëf jaajëf. waaw bon di rappel di rappeler numéro bi parce que fii laay defee live mënumaa jël fii nii fi may defee live nii mënuma fi teg mënu fi mun nit mënuma woo ci portable bii may defee live ba pare WhatsApp nii na ne mënuma la jël fii dama koy répété waat encore une fois parce que tamit waxtaan wax dëgg ca la

mi ngi nii boo wootee ma jël la mi ngi nii boo wootee ma jël la mi ngi nii boo wootee ma jël la 641 53 24 xam nga loolu yomb na mais nit mun mun ma def fii laaj nit di ma woo fii asalaamaaleykum ñu jël keneen bisimilah ñu répondre ko. bu leen neexee tam mun nga woote am na beneen am mun naa joxaat beneen numéro aussi y pas de problème mun naa joxe sama beneen numéro allo salaamaaleykum allo allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ Mola. delloo ziar. ñu ngi lay déglu. ñu bool. Hmm. Mm-hmm. ci li xew Sénégal. Mm-hmm. ndax dañoo am lu ñu bertu trop trop trop ci nguuru Macky Sall bi mais aussi bëgg a ñaaxaat jeunesse bi rek mm-hmm. ñu xam ni combat bi jeexagul te ndam li lay gën a yokk patriote engagé wu ànd ñi nga xam ne ñoom ñooy sympathisant wu waa PUR leer na ma bu ñu génnee. envahir dëkk bi quartier par quartier. ville par ville pendant quarante huit heures léegi ñu am li ñu bëgg atteindre suñu objectif. Hmm. et ces soi-disant député yi nga xam ne ñoo woote loi bi. Hmm. gars yi waruñu leen may jàmm. dañ leen war a attaqué fekk leen seen i kër songu leen luñ ci bañul luñ ko bañ. um parce que ñoom suñu avenir la ñu bëgg a jël kat ay la ko tollool duñ ko nangu. su patriote yëpp génnee. à quarante huit heures. léegi ñu régler problème bi envahir nag toutes les villes. Mhm. mettre Sénégal gi yëpp ville morte. Mhm. en quarante huit heures baaree mbedd yeeg fépp. Mhm. dugg si kër ñi nga xam ne ñoom ñooy waa APR yeeg benn bokk yaakaar yi ak gars yi nga xam ne ñoom ñooy député yooyu nga xam ne ñoo woote lii envahir seen kër yi xeex ak ñoom luñ ci bañul luñ ko bañ. en quarante huit heures léegi ñu lijjanti problème bi léegi Macky Sall abal.